jërë ngeen jëf mbokki internet TV 28 euh, Pro TV ak euh, ay visiteurs am tey ñu ngi am mbégte ak contentement dalal euh, directeur général Mor Seck ancien directeur général d'ailleurs sax mu nekk premier directeur général de l'agence de la maison de l'outil ñu koy wax ANAMO actuellement conseil municipal au niveau de la commune de Touba sëñ bi Seck ñu ngi lay ñu ngi lay dalal. maa ngi man tam si ma kër di leen sant bu baax ci invitation jërë ngeen jëf kon yéen a ngi toog yéen a ngi toog seen émission càmbar muy di laal politique bu baax a baax a baax euh, sëñ bi dafa mel ni fan yi euh, euh, gëj nañ laa gis lu lu ko waral. waaw xam nga maa ngi nuyu ñëpp d'abord di siyaare sëñ taxaa ba Basiru Mbàkke mu nga xam tey moo toog toogaayu Sëriñ Tuubaa di ko ñaanal yàlla suñu borom oyofal ko yan bi te yàggal ko ko ci yéeneem lim yéene liggéeyal maamam. Euh, te yàlla def ñu ànd ko ak moom ci ndigal ak ci bàyyi tere yi mu ñuy digal di ñaanal njabootu Serigne Touba gi yëpp leen ziar leen nuyu di nuyu population Touba ak Mbacké yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp. pour ñëw nag ci li nga laajte euh, gëj a gis waaw euh, li fi mujj ci actualité politique bi nga xam ne dama koy def tam ci dëkk bi mooy présidentielle yi yëngatu naa fi ci ni ma mënee. ak fi suma kattan toll ak suma yéene yëngatu naa ci li ma ci waroon def ànd ko ak ñi ma ko waroon àndal te yàlla defe naa tam bu buñ ci amul ndam liñ buggoon tam am nañ ci ndam ndax fa nekkoon def nañ ay jéego yu mag ci politique. beneen bi mooy dëkk bi nag man taalibe laa am fi kër fi ngeen nekk nii lépp lu ma am it bi may ñëw di politique it loolu taxoon ma ñëw def Touba. defe ko Touba ndax mën naa ko defee Kaolack ga ma juddoo waaye nag fii laa cosaanu tay ba cekkeen dëkk bi it maa ngi ci indi sumay xalaat ci ci problème yi nga xam ne moo fi am ndax dëkk bu barkeel la te fu barkeel rek bari ay enjeu li tubaab di wax enjeu maanaam ay ay jafe-jafe comme ni mu amee ay ngëneel euh, te nit ñi nag li ci des ñoo ko war a def Sëriñ Touba moom li muy def ba ñépp di ñëw def na ko waaye li ci des ñun julli di bu defe naa bu ñu ba si biir na donc gëj Euh, waaw ndax politique tam toujours rek du métier pour man na du métier du suma métier dama koy def moo ko war a def bu ma war a nekk ci leneen ma nekk ci leneen. jërëjëf mu mel ni que gëj nañ la gis waaye yaa ngi toog ci ci ci mbiru bi man analyse ciy def. waaw bi analyse ma ci def rek mooy euh, ñu xam ne Sénégal moom réew jàmm la yàgg nañ ko wax yàlla defal ñu ko aussi ndax li dal suñu ñeneen ñi nekk ci Afrique yëpp li leen di dal te ñu naan ñun dalaguñu te yàlla bu ñu dal loolu am na lu ci Sénégalais yi jikkoo maanaam seeni jikko euh, ci yàgg ci ci ci waxtaan ci nangu ndigal ci am ay kilifa nangu am kilifa ndax Sénégal nit ñi dañu tënku ci ay kilifa euh, aussi ñu nekk dëkk boo xam ne suñu suñu aada ak suñu cosaan ak suñu diine. defal nañu loo xam ne ñu mun a dëkkoo dëkkoo dëkkoo maanaam ñu mun a muñalante tolerance tubaab di ko wax di maslaa suñu biir ak di di bëgg lu baax ah pétrole nag njëkkuñ ko fi am xéewal la yàlla indi ci réew mi réew yëpp bëgg ko waaye nag bi mu ñëwee ba am nu mu def ci àdduna bi am na tey ñoo xam ne sax bu bu newoon yàlla dana leen ko jox dañuy tiit waaye nag man li ma gëm mooy li benn wax malédiction du pétrole ak gaz amul maanaam ñëwuñu indaale ay mbon malédiction maanaam nekkuñ loo xam ne rek dañuy ñëw indaa indi ay mbon kese duñu ma wax ne tam dañuy indi ngëneel kese lépp a ngi ci biir nit ki nga xam nag moo ko war a jëfandikoo ndax du gaynde yi du mala yi ñooy jëfandikoo pétrole ñun doomu aadama yàlla sàkkal ñu xel ñoo koy jëfandikoo kun nañ jëfandikoo suñu xel bala ñu jëfandikoo pétrole bi bu ñu buggee jëfandikoo pétrole bi mu amal ñu njariñ dañu koy jëfandikoo ak suñuy xel bañ ko jëfandikoo ak suñu xër àdduna dara jaru fi aakimoo pétrole bi xéewalu suñu borom la kenn waajuru kenn indiwu ko fi pexe kenn indiwu ko yàlla moo ñu ko xéewale di ñu seetaan nag ndax ñun ay gor lañ ay nit ñu baax lañ ay nit ñu bëgg lu baax lañ bu ko neexoon du ko fi indi te bu ko neexoon mu indi ko ba pare duñ ci jot te jotaguñu ci sax coow li na kuur loolu képp kuy nit ku am xel di jullit war nga wax ne ñun nit ñi am na lu des ci ñun ndax luñ war a mën a bokk la ñëpp gis seen bopp te kenn mënu ko aakimoo ba doo ko fi baax am na ñu ko doon xëccoo di ci reyante ba nañ ko fi euh, te en tant que homme politique man lay wax war nañ def suñ kéemtalaay kattan ñëpp nag ñiy gouverner sëriñ seeg képp koo xam ne da nga wax ñu déglu la wala nga dox ñu topp la war nga def sa kéemtalaay kàttan ci biir ak ci biti pour que ñu fexe ba nit ñi ànd ci ak dal dama ne kenn mënu ko aaki moom ndax bëri na bëriwaay boo xam ne yàlla def ko def pour que ñu jariñoo ko ñu ñëpp ci jàmm wala ñu bugg ko def ñenn ñi jariñoo ko su fekkee loolu am na mooy indi fitna gi nag. waaw directeur dafa mel nag mooy li nga wax pétrole amul malédiction waaye bu fekkee lu ñëpp yi bokk la ñu bokk akimoo dina malédiction dina am te li nit ñi wax dafa mel nii mooy daal am na ñoo xam ne ñoo ko bëgg a akimoo bàyyi ñi ci des. loolu maadu moo taxoon bi élection yi jeexee président di wootee dialogue pour dafa mel ni li tubaab di wax naan euh, casser l'affaire dans l'œuf wala gisoo loolu yow. non man gisuma ne président dialogue bi affaire pétrole bi ndax defe naa woote na dialogue ba pare sax affaire pétrole bi gën euh, affaire BBC bi génn mais xam nga ñun ay bitim réew waruñoo ñëw di ñu mbëkkalante wala ñuy àtte am nañ tradition ak cosaan boo xam ne am ay référence ay wéeruwaay yoo xam ne buñ ci jafandikoo rek euh, danañ war a mun a waxante suñu biir rek la suñuy problème àddee bi nag moo toll foo xam ne soo yeewuwul xamuloo nu muy doxee xamoo sa bopp gëmoo yàlla dinañ la dugal ci gute goo xam ne ña ci dugal duñ la ca génne teg doo ci mun a génne sa bopp yàlla rek la ci mun a génne yàlla nag ba mu joxee nit xel man moom laa jàpp ba mu joxee nit xel jox la ay moyens daf lay seetaan nag moom suñu borom li ci des gëm-gëm la ak pas-pas ñi ñi nga xam ne ñun ñooñu ñooy tax ñoom lañ gëm muy sëriñ tubaa Alaaji Malick Baye Ibrahima Niass Seydina Limaamu Laay Njaasaan fu nekk ak ñu baax ñi fi weesu ak jàmbaar yi nga xam ne sax du ñoon ay jullit ay ceddu noonu Lat Joor ak ñi mel ni ñoom xeex nañ fi ba taxawal Sénégal kon bu président ñëwee nañ daan doxal itam du tere tam dañ daan diisoo di waxtaan ndax tam fenkaloo ak kii jaar fii kii jaar fii loolu mënul ñàkk ci mënul ñàkk ci ab askan ci réew waaye nag ñi jiite toujours nañ mat mat boo xam ne ñi ñi jiite tamit nekk ay ñu dal ñoo xam ne dañuy nangu kilifteef ndax lu yàlla dogal nag léeg-léeg loolu la ndax li ñuy wax démocratie yëpp bu demee di jongante pexe ñëpp ku nekk da ngay def sa pexe ak say ma yàlla daf ciy dugal loxoom moom moo ko wax mooy mooy mooy samp nguur bu ko xesee ba samp nag ne nit ñi nangu topp nguur googu waaye nguur googu itam nag xam ne diñ ko jox nit ñi ñooñu ko topp ñoo tax ñu jox li may wax rek mooy dialogue bi mun nañ ci dugal problème bi nga xam ne yëpp moo ñuy fenqalante pétrole bi nañ xool ñu ko yaatalee ba nga xam ne ñëpp ñu ci war kuréel yi ci war a nekk yëpp nekk si ñu teg ko si yoon ndax dëkk bu mel ni Koweït dëkk bu mel ni Dubaï dëkk bu mel ni Norvège dëkk bu mel ni si ay doomu aadama fa nekk ñoo xam ne ñun gënuñu ci ci ci dara yore ay xel ni ñun am pétrole mu jariñ leen jariñ seen askanu tey seen peuple jariñ ñii ñëw ëllëg te kenn mësu ci dégg caw dañ koo jubal moo tax dañ ko teg si yoon ñi nga xam ne boo demee yeneen pays may bañ a tudd xam ngeen leen en Afrique ak ailleurs guerre bi pauvreté bi damay jël rek benn pays boo xam mun naa ko tudd muy Nigéria lim am ci pétrole ak gaz waaye boo fa demoon tey ñi am lu néew la yore mbir yi tënk euh, ak ko population bi yëpp nekk ci ay jafe-jafe loolu doomu aadama bu koy def sori woo bàyyi ma ndax alal jooju nga dajale dem dénkaani ko la plupart ci réew tubaab yi ak da nga dee ba ko ba ko fii bis boo duggee sa biir bàmmeel nga xam ne yàlla. mun nga nax nit ñi waaye yàlla suñu borom munoo kon benn benn point bi ñu desee ci pétrole bi ñu mën a avancer ci waxtaan wi mooy yéen bi ngeen ñëw au pouvoir daf mel da ngeen waxoon gestion sobre et vertueuse waxoon tamit ni la partie avant le parti euh, euh, la partie avant le parti. wax tamit la patrie la patrie avant le parti. wax tamit que ni bon da ngeen doon xeex dévolution monarchique mais ñu gis ni coowul pétrole bi sax li ci gën a sotti pétrole ci boppam pour mu gën a jëm kaw. rak président moo ci tax nee nañ contrat yi dafa nébuleux dara leeru ci euh, wax nañu sax ni que lim ci am moom lim ci gagné bu ñu ko doon séddale Sénégal ku nekk di nga am 400000 yow jot nga say 400000 wala yow jàppoo loolu. xam nga mbirum pétrole bi moom il ñu ci laxas politique waaye nag nañ koy gën a def ci citoyenneté maanaam ñu xam ne ñu ñëpp ko bokk. opposition comme pouvoir pouvoir bi amul sañ-sañu féetewoo ko bu ko féetewoo du mun a nekk. opposition bi tam mënul wax ne man li ma ko gisee rek noonu la war a doxal dañ ko war a teg ci yoon mooy li ma la wax dëgg moom la yàlla bëgg ñu ko tegee ci yoon teg ko ci dëgg yéenante ne ñun ñëpp ñoo ko war a bokk mu jariñ peuple bi tey jariñ suñuy doom ëllëg Sénégal mel ni Dubaï fii ak 5 ans 10 ans loolu président Macky Sall bëgg un Sénégal émergent en 2035 yàlla indil ko pétrole kon moom bu wéetee moom ci boppam rek tëdd bu mu déglu benn influence bu dugal ci loo xam ne day indi fitna ci réew ndax mooy président de la république moom la yàlla def déposé ko yàlla jël dooleem moom suñu borom déposé ko ci moom muy doomu aadama ni ñun ku na def taxawaay bi nga xam ne rek moom la Sénégal yëpp di xaar ci moom te man am naa ne yaakaar ne malgré jafe-jafe yi am ak yi ñuy wax loolu nag moom dana resté nit ki ma xamoon man nga xam ne depuis Gaston Berger laa ko xam xam ko université muy nekk bañkat xam ko kii defe naa dina resté quel que soit pression yi ak influence yi ak li ñuy wax le pouvoir rend defe naa dina fexe ba xeex ak boppam ndax fa mu jógee ak fi mu yegg si war na toujours di ci méditer moom fi mu jógee mooy li ñuy wax États-Unis mun nga dëkk ci foo xam ne ñi gën a ñàkk ndóol ci àdduna egg ci ñu gën a kawe bokk ci ñu gën a kawe bi ngay judd dem ci ñu gën a ndóol ndax foofu liggéey rek ak jaamu yàlla moo liggéey rek moo fay may ndam je crois que président Macky Sall su gisee philosophie boobu te moom laa ko xam bu ko jàppee li ci des nag maintenant affaire rakam man rakam faluñu ko rakam la muy def bu fekkee dafa am ñu ciy gis yu lëndam nañ ko yóbbu ci yoon te yoon doxal yoon leeral mbir yi rakki président magu président ci ñu ñun président lañ fal yàlla ànd ci képp ku taq ci moom président Karim Karim Wade dañ ko xeex Ablaye Wade daanaka moo daanal Ablaye Wade bu fekkee ne Aliou dafa def taxawaay boo xam ne du yoon te justice leeral ko mu leer nañ mais dañ koy teg li ñu ko war a teg loolu mooy mooy di dëgg. waaw dafa mel ni dañ ko fi defee pare waaye kenn du ko fi waxe ndax ñu si doon wax ku mel ni Guy Marius Sagna Adama Gueye di activé wu farouchement à ce que yëf yi mel temps dañ leen jàpp dugal leen ci kaso bi ndax dañu bëgg a tiital ñu ci des. xam nga pour ñëwaat ci affaire Alioune Sow man juriste la droit laa jàng ba egg ci vraiment fu kawe ci ci du ma mën a comprendre nit ñu accuser ko rek ñu ne moo def. indice am na sax même bu indice amee maanaam lu ñu foog ay éléments yoo xam ne maanaam feeñ na mun na am ñu am njort ne waaye ba léegi loolu doyul gis nga suñu borom même buy sanctionné yenn fautes yi danaan na ko ñetti nit juróomi nit gis fautes yu grave yooyu nga xam ne suñu borom laa la wax bu koy def danaan na am preuve ba mu wóor ndax gis nga liberté nit pour ñëw affaire ci affaire Guy Marius Sagna ñu même ñooñu tamit balañ leen a arrêté war na ko jar pour réew mi ndax ñu leen di arrêté ci kàddu réew mi lañuy ñuy arrêté doomu aadama dugal ko prison sauf boo jàppante ak nit te boo jàppante ak nit tamit loi bu lay arrêté di dugal prison ci ci ci sañ-sañu réew mi la koy def pour ngeen tere réew mi loi pénale lay doon maanaam loi boo xam ne ñoo aaye li nga def ci société bi waaye pour ñëwaat ci lool donc justice mi ngi saisir international comme national mais nañ ci dem ba mu jeex rek dëgg gi feeñ dëgg gi moom mu feeñ mooy njariñu Sénégal man ma nekk APR rek ma bañ cee nekk li ma jiital mooy suma citoyenneté ak suma gëm ak suma bàmmeel élection présidentielle yi nga nekkoon ci un membre actif donc l'APR boo xam ni battre nga campagne ci dëkk bi Touba ak li ko yëpp ñu gis ni bi élection yi jàllee ba président gagné bay séddale ndomba tànk yi dafa dafa zappé Touba ba ci Mbacké sax 62 euh, pour cent population Diourbel vit dans le département de Mbacké 70 pour cent de ces mêmes populations Touba la ñuy yeewoo ñu gis ni euh, amul genn ndomba tànk goo xam ne séddale na ko fi dafa mer wala dafa daf leen doyloowul mais loolu du tey rek du élection yi rek li ngay wax nii situation bi c'est vrai Khadim nekkoon na fi ministre ci gouvernement yi jiitu woon mais Khadim Diop politique wul. déedéet man euh, ministre bi la ku nekk sur le terrain doon muy la. Ah, dama lay wax rek mais n'a pas été xam nga xam nga xam nga réalité politique wax moo gën di wax politique nii rek ci sa xalaat fiction nii man damay wax réalité politique dama ne. Euh, Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee musul namee ministre bu dëkk Touba ce que je bi mu fi nekkee ak Abdou Diouf bien sûr Abdou Diouf nag daana namee ay ministre Mbàkke Abdoulaye Wade tam namee ne ministre Mbàkke Touba ci boppam directeur Abdoulaye Wade man la fa namee Fallou Touré woon directeur PCA PCA wala woon na Fallou Touré président conseil d'administration man rek la fa Abdoulaye nommé ci li ma ragal di mandaam yëpp directeur général ministre Madické Niang Saint-Louis dafa ñëw Touba rek taalibe di def activisme mais boo ko xoolee foofu ndam da daan naan Aliou Ngouye Ndiaye ndax taalibe la fii et cetera donc dama la bëgg wax ne réalité gis nga nomination politique u dafa nekk loo xam ne dafa dépendre ci facteur yoo xam ne du rek ci politique lay tenir compte yeneen gox yi boo fa politique am base xeex bu ñu nommé mënuñu laa jéggi ndax sa base du ko nangu bokkul ak Touba suba da ngay xeex ci xalaat ci bëgg dëkk bi engagement euh, mobiliser nit ñu am ci yow yaakaar mais suñu tabb dañ la fay teg dem tab keneen parce que kun pouvoir bi tabbe fii à Touba du pouvoir politique rek dafa am yeneen yu ci laxasu yoo xam ne ni xam nga ko xam naa ko dëkk diine la benn kilifa fi nekk te autour de lui am na benn appareil bu fi nekk euh, loolu yëpp dafay participer ki nommé itam nekk président de la république ci Senghor ba tey day waxtaan ak borom dëkk bi ndax dëkk bii dafa niroowul ak yeneen dëkk yi. maa ngi fàttaliku bi may ñëw fii di politique en 2007 bi ñu président Abdoulaye waxee yéen cadre da ngeen dem ku nekk nga wuti base sama mbokk Kaolack yi xëcc ma ñëw mu am am coow lu rëy ba Baye Cheikh Awa Balla bu a wax mais bi ma laajee kenn temps yii lay commencé am problème ak Abdoulaye Wade muy Idrissa Seck këram am kilifa gu mu fa yónni woon ma ñëw nag di ko waxal loolu na ko léegi su ma doon dem Kaolack ak Touba pour politique yi lan nga may conseillé mu ne ma je te conseillerais du ma la wax nga dem fenn mais naa la wax moom munoo fa am base mais mun nga fa am lobby mais munoo fa am base politique boobu kenn mënu fa benn base moo am te kenn ko yor mu ne par contre mun nga fa am base politique mais Touba munoo fa am base politique mais mun nga am nag lobbying foofu kon c'est pour dire que pour man gëm naa ne euh, base politique liggéey ko fii. kon daal fii nomination yi moom ci lobby rek ah, ci waxuma rek ci lay dox waaye lu ci bëri ci lobby bi nag mooy euh, maanaam euh, dëkk bi dafa am borom dafa am ñoo xam ne tamit euh, yàlla moo ko dogal. est-ce na ko nag sonn ah, mais boo ko xoolee moo tax politique bi dinañ dem ba nga xam ne Touba defe naa ne man dama wax ne politique alimentaire moo fi nekk maanaam nit ñi engagement politique daal ak conscience politique ak am ay idéologie politique gëm ne da nga koy def pour soqali sa sa askan. defoo ko pour nax leen defoo ko pour yow sa mbir baax ñoom ñu topp rek sa gannaaw euh, loolu ku ko fii def tam te basé ci nit ñi rek euh, gëw ma ne nit ñi mën nañ laa fal Touba moom gëw ma ne mbooloo mi mën nañ laa fal moom. am nga wax muy euh, tey bu ñu ko doon natt di ko xayma ci wàllu économie ak démographie deuxième ville économique du Sénégal de par sa démographie aussi ndax tey population Touba profité nañ ci loolu dëgg dëgg dëgg dëgg. des na. jumaa ji biñ koy defar xaaruñ ci état temps yooyu temps colonisation la waaye ñi fi nekkoon muy maam Cheikh Ibra Fall sëñ Modou Moustapha yàlla na yàlla yokk seen leer ak sëñ Fallu Mbàkke ak njaboot sëñ Tuubaa bi la leen seen waajur waxoon ba muy dem rek bon ko taxawalee lu ngeen taxawalati ma taxawal ko muy jumaa ji bañ ko bëggee defar tubaab bi fi nekkoon muy état daf leen gàllankooroon di leen wax ne raay bi bati matériel bi mënul ñëw Tuubaa maam Cheikh Ibra ak maam ñooñu ñoo jël taalibe yi ñoo gas Jurbel ba dégg naa sax bi ñu commencé ba muri ba taalibe ak seex yi bu ko def dañu leen il faut ngeen fay leen esclavagiste amagul il faut ngeen fay nit ñi koy def 1500 waaye bi ñu leen fayee maam ba ñu joxaat ko addiye Serigne Touba. kon loolu mi ngi fi ba léegi gëm-gëmu muridi moom Serigne Touba ko liggéey du du comportement kenn mun na ko wàññi ci taalibe yi waaye nag dafa am loo xam ne Serigne tubaa duñu ko defal mukk te duñu ko defal mukk li tax nit ñëpp dawuta si fii ba nga xam ne Touba bi ñu ko créé léegi matagul 100 ans la ko ëppee. moo gën a ndaw ci ay at ci dëkk yi mais ëpp ci solo ëpp ci dayo loolu ñaanu sëñ Touba ak liggéey sëñ Touba la ak lu suñ borom nangu waaye nag liñ koy liggéey dëkk bi ba mu nekk dëkk boo xam ne ku ko gis danga koy naw ci set ci rafet ci moderne ci am li nit soxla pour jàmm yàlla am sell ñu jund ci jàmm yenn yu bon yi ñuy dégg dëkk bi mu ngi naqari loolu bu ñu bëggee mu dañ fi Makka la fa nekk Seydina Muhammad sallallahu alayhi moo ko fa ñaan yàlla mu def ko fa waaye est-ce que moo ñëw tabax màkk ba tey ku bëgg a noppalu sax bëggu dem fu neex fu rafet foo xam ne bu fa demee dañ fay sawar a demaat ndax ci set gi rafet gi nga yéem leen ci ñu ko defaree ni mu rafete ba tolloog day day day dayob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun murid la suñ baaraab fàlli waxoon ni ñun de màkk ñu gëm sëriñ yàlla rek ak yonent bi ñoo ko def waaye ñun it ay jinne defaruñ ko ñun taalibe ñoo war a takku defar suñu dëkk bi donc ma kon population pour ñu def ko il faut ñu génne ay xalaat ci couleur yëpp Touba ci kanam li muy def baax na ci wàllu mairie bi ñu génne ay xalaat ndax mairie dafa am rôle bu mu war a joué ñu nekk ci bi di dëkk ci marché yi di yore koom bi am na taxawaay bu mu war a taxaw ci bi am na taxawaay bu mu war a taxaw ci euh, jigéen ñi am na taxawaay bu ñu war a taxaw ci dëkk bi soo ko nag autorité rek fekk si bu ñu loolu kon ñu nañu am fulla ak fayda ñun communauté Mouride nga xam ne ñun amul lu dul Serigne Touba te amul lu dul Touba te ñoom ñëpp ñeewuñu ko nag àdduna bi yëpp ndax Touba moom fii rek la am Serigne Touba it rek la am mais ñu ñëw war a xoolaat suñu bopp xool na la ñuy organiser pour def Touba ba mel ni Màkka ba ku fi ñëw doo wax ne Touba dafa salté wala Touba dafa am ay feebar yoo xam ne. directeur euh, boobu nga wax de yéen jox nañ leen ci tuuma lool yéen waa conseil municipal yow ci conseil waaw mais assainissement benn conseil municipal def ko bu dakaar sax attanul assainissement Dakar yor ko assainissement état moo ko yore ndax dafa diis waaye nag am na lu ñu ci mun def. waaw dañ ñu le minimum sax mooy curage. waaw waaw bu état defaree nag yenn comme ni ñu def ci autour jumaa ji ak ñaari étage bi ñu ko defaree ba pare commune nag war na jël ay matuwaayam fàggadi ko ba nga xam ne tamit duy boucher ndax tam curage war nañ ko mun def nag waaye xam nga Touba. man nekkoon naa adjoint président communauté rurale bu Touba boobu communauté rurale la Alaaji Baara fi nekkoon maa toppoon ci moto la buntu kër sëñ Abdou Fatah gii ci jumaa ji fii bu amoon gan bu jógee bu mun jógee doo mun a jàll bu tawee ba pare tuuti rek bu taxee tawee tuuti da nga daan nekk dégg sëñ Abdou Fatah falilu ñaari étage noonu yoon yi jëm dénk yëpp ci jumaa ji da daan da daan da daan bu tawee tuuti rek mu fattaan tey defar nañ ko ba mu dañ na waaye nag gis nga dëgg tant que defuñu politique de dallage Dakar rek ñoo ci yem Dakar gis nga ne mal bu tawee boo demee ci réew yi ñu yéem Màkka ak feneen dañ ko dalee mais bala nga dalee bala nga defar tëli da ngay defar assainissement tëli boo gis mu njëkkee te amul assainissement ci dagg ci yàqule jëm assainissement mooy tax ndox mi dem mais assainissement tam pour que tuyaux yi mën a di dox il faut que ñu dalee dëkk bi ndax boo defee assainissement te dalewoo salte bi nekk ci kaw dëkk bi suuf si bés bu tawee taw bu njëkk ñooy daw ñoom ñëpp dugg ci biir pax yi fekk cuire nga par ñoo ñoo fattaat ko gis nga gis nga di tubaab dox on ne recrée la roue maanaam roue roue di roue oto ni muy mel nii doo mos a gisaat ci àdduna ñu defar beneen façon roue boo xam ne. ñu dañu gis ni fii curage bi dañ ko defoon en masse appel xalif général sous le jeu du xalif général des Baye Fall ñu ñëw te gars yi nee nañ ci commune bi woote woon na amoon na benn ligne budgétaire boo xam ne jéemoon na ci ndax loolu dañ koy reporté à nouveau koy joxe addiya wala nañ koy def wala mais ligne de crédit bu amee ci budget c'est pour que ñu exécuter ko pour li taxoon ligne de crédit bi ñu bind ko fa bu dee pour curage nawet bi ko nañ ko jël def appel d'offre wala ñu seet ni koy joxee ko seen bopp ak taalibe bu ñu wàcc itam di def yaakaar naa ne commune bi dugal na ci loxoom ci indi ay matériel engin yu ñu nit ñi seen loxo rek lañu yore matériel bi ñu koy defee defe naa mairie bi xanaa lu mu bon bon dina indi présidence mairie bi de ah loolu de bu amul nag da ngeen koy laaj nag ñi jiite mairie man conseil municipal la waaye jiite nekkuma ci nekkuma jiitewuma mairie bi nekkuma ci conseil municipal nekkuma ci bureau bi ci conseil bi nag laa bokk téeméer yi ñu fi tànn waaye su ma doole nag yeggul ci euh, lu tax lii defuñ ko ak lee defuñ ko euh, ni nga ci xaw a mel rek laa ci mel. bi nga nekkee directeur général lan la profité Jeune Touba. man ñoo ngi ma nommé juillet maa ngi am budget mars 2011 ñu def élection 2012 ñu wàcce ma man 18 mois laa def ANAMO. créé ko muy agence bu bees bu Ablaye Wade maître Ablaye Wade taxawaloon depuis bi mu faloo fu nekk la ko yóbbu ci ministère bu nekk yóbbu na fa maison de l'outil mu nekk kër yoo xam ne dañu ko waroon samp ci quartier yi pour ñu jàppale artisan yi ak képp koo xam da ngay liggéey ak sa loxo ak sa xel ñu jàppaleen mécanicien carreleurs yi plombier yi jigéen ñi def transformation yooyu la bëggoon ñu def ci quartier ay kër yu ñu tuddee maison muy kër def fa ay jumtukaay yu xarañ yu xarala pour que ñu leen ciy jàppale di yokk seen xam-xam ak leen dimbale ci ay emballage ak ñuy def projet bu am solo président Macky Sall xam ne projet bu baax dégg naa Alioune Badara Cissé campagne Macky Sall 2012 Alioune Badara Cissé doon nañu wax baaxaayam la preuve est bi ñëwee di dissoudre agence njëkk yi dissoudre nañu ko fukki weer ak juróom-ñett laa fa am yore budget benn budget laa exécuté ak genn wàllu budget taxawal naa kër gi maanaam utal naa ko siège recruté naa personnel bi yëpp manuel de procédure yi ñu waroon defar yëpp def naa ko euh, ubbi naa ñeenti maison parce que maison de dañu wax woon xaalis. mi ngi fi benn ngi janoog mairie bi da nga ko gisul rek mais am na benn bu janoog mairie bi. waaw man nag bi ma fiy nekk daal defaroon naa benn boo xam ne ci sel bi ba Ablaye Wade ñëw fi màggal taxaw fa ak otoom ne ah lii maison de ma ah, ne xanaa bala dee ma gis benn maison de l'outil wàccul dugg ci biir man taxaw na ci otoom xool maison de l'outil bi sant ma boobu seex Bassang ci biir otoom man bi ma ko joxee waa Touba bay sa weew tànk li ma njëkk a mooy ñeenti maison de daa fa jot ubbi ci Sénégal ñaari Touba lañ nekk benn bi pour mbirum tailleur beneen bi mbiru infographie nga xam ne boo ko daan def Dakar ngay dem mu ubbi ko fii pour xale yi jàng ci ak journaliste yeeg xale yi def yëpp affaire infographie. non nee naa la man bi ma defaloon kay nit ñi nañ fi image yaa ngi fi télévision wane na ko màggal googu euh, ci na ko yàlla xarala àjjana moom ma luy woon foofu ma defar ko. def ko fa def ci ay ordinateur ba élèves ak ak yi ñoom bekkaay ngi nii commencé fa ñëw li ci am nag mooy dama fay yàggul te ba mu fiy jógee ñi ma xeex. waa Touba artisan ay nit ñu dëkk Touba ci lañ bokk dañoo doon yow suba teel naan Ablaye Wade jëlee fi kii ndax ci ay xëccoo yu xëccoo seen biir rek mais loolu li weesu na li am solo daal mooy pour ñëw ci li nga doon wax nomination gis nga politique bu ñu koy def il faut que kilifa yi fii xam ne politique boo koy def da ngay fexe ba sa doomu gox sa waa gox bokk ci ñi nga xam ne ñooy ŋànk réew mi bokk fa ñuy dogalee di séddalee xam nga tey bu ñu reyee nag bi ñëpp toog ku nekk yore sa bool ña tiim nag bi di séddale boo mënul fexe yore luus ngay séddale fexeel boog ña taxaw naan ko defal fii defal fii ñu bokk ci waaye bu fekkee yow ñay séddale yore woo luus gi te te ñu ko tiim ñu wër waa ji naan ko defal ci bool bi defal ci bool bi amoo fa waay ragal naa say boolu waa kër dinañ du du am lu ci nekk. politique boo koy def da ngay fexe ñu nommer say doomu gox ndax say doomu gox say coono waa gox say problème gox say ka dëkk ca gox ba moo ko mun def waaye doxandéem du la ko defaral te Touba gi loolu nga wax amuñu ay nomination ci politique lu handicapé dëkk bi la parce que conception projet yi ñu fi war a développement bi fi war a am moderne moderne bi ñu war a mën a def doomu dëkk bi rek ñoo jóg dem def ko ndax mbëggeel googu ku fi dëkk maamam yi dëkk fi sonn fi ak yooyu dëgg la nag Touba moom dëkk murid yëpp la ñëpp a fi def waaye daf ci am loo xam pour ñu defal ko population bi fi dëkk ñi fi dëkk nga xam li ñu am yëpp dañ ko indi fii bokk ko euh, ñoo ñoo ko mën a def mais ñi fi dëkk kenn jiitu ci le premier magistrat de la ville man gisuma benn de coopération buñ buñ kii pour euh, soulever problème yi jëm ci indi remédier ay solution kan mooy premier magistrat de la ville fii. c'est le maire. fii c'est le premier magistrat c'est le khalife général des waaye nag boo ñëwee ci mbirum gestion quotidienne ak moderne. damaa jëlee teg ko ne parce que loolu c'est la sainte. Ah. parce que Touba tamit dëgg la. souvent ah. dañuy def confusion bu ñu jëlee caractère beeg camouflé ko bii dina métti loolu ci nit ñi. dëkk boo xam ne yaa ngi ci lu am solo nag waaw. dañ naan moom mooy deuxième ville du Sénégal. Mhm. tey transport li koy assurer en grande partie c'est des. charrettes mhm. loolu doy waar. torop lu doy waar la lu maanaam lu lu xel mënul nangu la même bu fekkee dañ ko bàyyi nii rek mu dem ñu tëg ko ne ci lan na yërmande ndax nit ñi amuñu doole mais nit ñi amul doole da war a fexe ñu am doole yore réew loolu la. jiite ay nit mooy nga fexe chaque jour ngay xalaat lu leen génne ci situation yu jafe-jafe yu tar yi nekk di leen fexe ñu génn ñu ci génn ndànk-ndànk waaye doone rek nit ñi amul naa leen bàyyi seen ndóol googu waaye naa leen créer loo xam ne nii nag ñu ciy dëmbale ñëpp loolu loolu maanaam au lieu ñu yëg yow da nga leen xëcc pour ñëpp wàccandoo loolu lu bon ci société la lu mel ni ay Touba ca kanam jóg dañoo gis ne yaa un rek am lu fi waroon am te amu fi ñoom ñu jóg na lii dañu ko fat te ñoo ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan defe na ci seen conseil municipal bi yéen. non conseil municipal du suñu du suñu xam nga boo waxee noonu du suñu conseil municipal conseil municipal dëgg la sëriñ bi mooy tànn ki koy jiite ñi fay nekk li tax mooy spécial mooy gisoo ci benn jigéen conseil municipal ci Sénégal yëpp am nañu ay jigéen donc fi dafa am spécificité maanaam dafa am ngeen inerte population yi jugal seen bopp di lu mel noonu waaw bu fekkee ne xam nga ab saxaar saxaar nag bopp bi mooy xëcc de ji nga bagoon ci des mun nañoo yepp ay nit rek waaye bopp bi nag mooy xëcc dama la man bokk mën a ci bopp boobu. waaw léegi kon jotul nag ñu ko ci bopp bu ko attan bu a diir. ah loolu loolu nag kilifa dëkk bi nga xam ne ñooy tànn ak population yi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk tam te bëgg a dund ci dundin boo xam ne dina leen may ñu mun a jaamu yàlla jaamu yàlla bu set bu ñu waxtaanee ba xool li war a am ah, ne lii moo gën lii mais danañ ko def defe naa ndax tamit ay nit fi dëkk ay doomu aadama te lislaam gi ñu gëm Serigne Touba woote dëkkam bi dafa am ci ay valeur ak ay principe yu mu ko teg Serigne Touba euh, jaamu yàlla la wax. liggéey jàppalante fonkante bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak defar suñu defar suñu diggante defar dëkk bi loolu rek mu am tant que nit ñi teguñu mbir yi ci yoon teg ko ci yoon nag loolu nag dañoo amee kilifa nag organiser mbir yi jël borom xam-xam yu ñu xalaat ci problème mu Touba yi. Touba dafa am ay problème enjeu yu garaaw sécurité santé bu ñu demee ba ne ngaana ak ay tuberculose yenn maladie mi ngi feeñaat bu feeñaat Touba lay feeñ. yéen cinq milliards de budget ngeen voté woon seen axe prioritaire ngeen ni sécurité la yaa ko wax éclairage public. santé transport waaye kenn gisu ko de ba tey éducation. ñeenti weer soo ko botee euh, ñaata la ñuy recouvrer. juróomi milliards sax am ñu ni loolu. ak man mi ci Touba ndax. mais tuuti na man de mun naa la wax ne Touba mun nañ fa minimum te loolu expert fisc man fiscalité laa jàng. droit des affaires laa jàng maanaam impôt nu ñu koy jëlee ci société dafa am yoon dafa am nu ñu ko tëralee dafa am noo koy doxalee ba nga xam la nga war a mën a jël ci ci ci ci ci ci population bi seen yëngatu mu egg sa kees boo ko xamul principe yi wala tëratoo charte yi ak jumtukaay yi lay may nga egg ci loolu ak waxtaan bi nga war a waxtaan ak nit dialogue bi nga war def communication bi nga war a def ak population yi ak njariñ retour impôt bu ñëwee ba pare ba ñëw ci fi mu war a ñëw impôt boo delluwaat ci nit ñi mécanisme bi boo koy def rek day tourné comme ni jant bi di xëyee di di dem di di di dara moo baara jant bi muy muy muy sow ak di jóg waaye bu fekkee ne nit ñi bu ñu defee effort impôt bu subaa toilette yi nekk seen marché wala toilette yi nekk ci gaara routière bi wala wala wala hôpital bi war a nekk fii ñu war ci fajoo ga ñu demee du ñu fa fekk lañ ci doon xaar mais boo léegi boo leen demandé impôt duñ ko gaaw a joxe amul contradiction kon ñu naan deuxième ville économique ba pare boo ñëwee budget bi ngay recouvrer sax motul motul cinq milliards euh, Astou Souleye Diagne bi nekk fii dëkk Bargny di sama xarit def na fi ay études yu yéeme yoo xam ne mooy montrer l'impact maanaam dooley màggalu tuba ci koom-koomu Sénégal waxuma la koom mu Touba de koom-koomu Sénégal ay milliards la mais nan la ci Touba war a jariñoo loolu tax ñu ko jariñoo ville de Dakar yi ab Khalifa Sall doon na fi jéem a leb pour defar benn parking pour régler problème yi et cetera et cetera am nañ sañ xam emprunt obligataire bi ngeen ko bañaloon. emprunt bi ko kañ bañaloon. yéen euh, bon loolu ay procédure état la bul <laughs> bu koy bon bu la neexee tam waaw bon la tax ñu bañal ko ko mais bu ñu ko bañee tam nañ xam ne xalaat bi baaxoon na. xalaat bi baaxoon na leb ku am rek mooy leb te état ak ville ñoo yem dëkk bi tubaa dafa am lu ñuy wax signature. ndax nit ñi fi nekk yaafuuj suñu koom comme mi ngi fiy dox xalif bi rek signature fu mu soxla ci àdduna bi xaalis commerçant yi fi nekk li ñuy yore ci ay milliardaires ak ay millionnaires ak activité bi ñu muy yëggatoo bu ñu ko organiser woon partenaire coopération li ñuy wax coopération internationale war nañu mën a defar plan de développement de Touba régler problème assainissement problème mu mbalit yi Touba heure bi waroon na fekk mu am benn incinérateur boo xam ne mbalit mu ñu fi def rek da koy dugal ci four mag loolu monde bi léegi sax dépassé nañ ko te yooyu instrument la yoo xam ne Touba da ko soxla ndax gis nga mbalit mi moo nekk première bombe sociale beneen bi mooy jeunesse bi. yëf yi ni muy doxee nii ak structure sociale yi juddu exemple Touba ca kanam naan maam dem ba mujj ñu tas commune bi xam nga tamit loolu tam dafa am lu ñuy wax croissance cycle de croissance Touba ca kanam am na yu ko fi jiitu de ba tabax fi ay infrastructure mais tam Euh, maa ngi leen di ñaax te yaakaar naan sëñ Abibu Mbàkke bi nga xam ne bi laa bëgg wax ndax du dem ba mujj gi ñu ni léegi mairie moom dootul am mairie waaw loolu am na ñu koy wax ci suuf sax naan mairie bi moom bu yemoon ñu bàyyi ko defi leneen mais loolu tam mootul mootul loolu tam dem ba mel ni bi sañ-sañ dégg bu ñu fi dilee mairie bi ndax li ñuy wax tubaab def naan la nature a horreur du vide maanaam fu moom loolu moom baaxul fu dara nekkul nañ fa jéem a def dara comme ni sëñ Tuubaa de bi muy fekk Tuubaa yi dara naa ko fi man ay rab rek. kàmb goo xam ne loo fa def mu diig moom dafa dara xam ne loo fa def mu diig nag kanam boo xam ne loo fa def mu diig nag dafa jekkul sax ci dëkkub Serigne Touba. am na suñu diggante ak Serigne Touba ñi ko fiy def nag kooku nag fulla ak fayda taalibe yeeg sëñ bi ñoo leen fi war a génne ak koo mun di doon nag ndax dëkkam bii képp ku fi nekk bu nga jariñoo dëkk bi te joo jariñ dëkk bi feeyu naar ba xoromam feeyu Touba sëriñ Touba ak yow ndax képp ku fi ñëw fii fii ngay gisee ku fi ñëw daw dëkk maamam ak goxam ñëw ci seen Touba pour wut si fi njariñ ba am fi njariñ te du wëlbati ko def dara ci Touba loo xam ne nii ci ci ci ci ci ci kàttanam ak gëm-gëmam. xajaloo gi ci seen biir teraanga rek waaye nag xëccoo teraanga ak ñoo xam ne aussi dañoo jël politique daf ko liggéey dafa am ñoo xam ne dañoo jël politique gis ne nee nañ Abdoulaye bi mu fi ñëw la loolu gën a am mooy loolu depuis seen dañoo jël politique gis ne yoonu réussite la. réussite sociale maanaam yow da nga waroon a bay wala nga jàngi wala nga dem am métier wala nga nekk ci dara loo xam ne da nga ci da nga koy def comme ni ko lislaam di ci daan sa doole mu lew di ci dundal sa njaboot di ci dund comme ni ko yàlla gërëmee defaloo ko nga ne man tey man situation ma nekk gis naa ne daal ñu fiy réussir mooy ñi politique c'est comme tukki bi rek ak géej gi dañoo gis ñett nit dem ñoo tabax ay étage ci koñ bi ñu ne man damay dem mais gisuñu ne ñett ñu dem ñëw am teranga am na téeméeru dee yoo xam dem nañ te ñu gis loolu gis nga jaaxle peuple da nga leen di dimbale yàlla bu la defee nga am doole yàlla may nga am xam-xam xam lu ñeneen xamul lu ñu suñu borom ci boppam wax nag xam na lu ngeen xamul moo tax yàlla di ñu digal ñu war a topp ay ndigalam jaarale ko Seydina Mohamed dafa xam lu ñu xamul waaye yow mi nga xamit say pexe wala sa xam-xam yàlla def na ba nga toog ci jiite nit ñi doomu aadama yi war nga fa sa xam-xam boobu ak sa xam-xam boobu ak say jumtukaay yooyu ak doole jot la nga ko sa askan loolu mooy wooy bu rafet loolu mooy ndam loolu moo war a nekk euh, ngan nganaay euh, loolu nit ku nekk war a def muy sa kaala ci politique muy sa ndam fexe ba peuple nga fekk leen fenn les grands hommes dans le monde bay laa yoomi diini Seydina Mohamed Serigne Touba ñooñu du ci question diine rek la ñu dimbale de dañoo dimbale sax ci nan lañ war dundee pour suñu dindu gën a ñoŋ gën a baax seytaan nag moo ñëw laxas ci lu ci bokkul loo nag lañ war a set seggaat ko ci dëkk bi ku nekk nga toog fa nga war toog ku nekk def la nga mën a def ku nekk a def waaye ñëw fekk yow foo warul toog ñu fexe ba nga nga fexe ba toog fa. mais mais société boo gis gis nga loolu mooy ñu wax moo ñëwaat ci xalif yi xalif yi lu baax rek lañ xam ndax Sëriñ Tuubaa kenn du ko toogal moom du ko représenté too mat mat nañ waaye nag képp loo mat mat mat munoo nekk fu nekk yàlla rek moo nekk fu nekk ñi ko wër sëñ bi xale bu fi mun di ñëw équipe bi muy am nit ñi ko xam ne ñoo koy doxal ak di ko waxal ñoom ñoo mun a ubbeeku ci àdduna ba xool ni ñuy jariñoo àdduna bi ci lu yu bon yi mu àndal ndax gis nga nag lu baax foo ko fekk dana am luy la yu bon yu ci laxasu dañu sa yàlla bu lay defal dara da koy defal ba pare dugalaale ci ay pour xool yow yan capacité nga am pour mun a aussi nag résister ndax la yàlla yëpp tam 100 pour cent lépp nooy kon yow amoo benn mérite. dafa mel ni euh, internet bi dafa dégg sa question li ngay wax nii moom lay laaj. mu wax mbokk yi Moussa Seck ñu di nuyu sa invité Mor di gaaw rek di ko poser des questions benn bi mooy lan moo tax les cadres politiques se peinent à imposer. à Touba devant la crème maraboutique lan moo am foofu lan moo tax mënuñu imposer beneen bi mooy Mor Seck ak sa base politique est-ce que bi nga am animation ak base politique am fan la jërë ngeen jëf. waaw defe naa bu ma comprendre non bu ma comprendre li moom surprise la moom xamoon ne am na sa émission bi waaye lu ma neex la interactive bu ma comprendre ñaari laaj yi ma laaj bu njëkk bi daf ne lu tax cadre yi mënuñu imposer wu dëkk bi kenn mënu fi imposer wu ñaata cadre murid ñoo monde bi. dans les grands instituts ay Nazak fu nekk da koy fay ay borom laat ay murit dakaar gii tey soo demee université yi gën a mag murit yi ñu ngi fi supplant ci àdduna bi yëpp mais lu tax nanguñu politique pour Touba. xam nga tax man gisuma nibo niveau bi ma yem ci njàng niveau cadre bi ma yem ak expérience mam gisuma ku ma fi tollool ci ñu koy def ci ñu def politique fii ci Touba. depuis 15 ans nag. c'est kon daal yëf yi dafa am nu muy tëddee daal. waaw ah, dama la fii dafa am doole ju fi nekk joo xam ne kenn ko yor waaye kenn koo ko yor léeg-léeg kooku nekkul fépp xamul lépp ci zaahir baatin beneen affaire la moo tax ñu topp ko. Ah. commune bi commune bi man Touba laay wax de yow moom kenn mënu koo laaj. tubaa pour nga bokk ci cent yi ñuy choisir sax du sax soobare yow da ngay lijjanti rek waaye dafa am kilifa yoo koy décider. na ñu ni. xam nga liste maa ñëw ci màggal gi des ce jour man moom Cheikh Ba sëñ euh, loolu weesu mën naa ko wax tey man man lañ jox ne ma ñii lu ma junni nit bindu nañ ci Touba ci kër waaye euh, téeméer yi quatre booba quatre-vingt la juróom-ñetti fukki ñoom ñooy nekk titulaire juróom-ñetti fukki yi nekk yu xonq yi ñooy nekk suppléant ñi des ñëpp bokkuñu. xalif bi. dañ leen kër yëpp kër yëpp kër yëpp ay proposer. moo xam mën nañ moo xam mënuñu. ah loolu nag yow nag yaa ngi loolu la tubaab di critère xam nga naa sëñ Fallou Mbacké yal na yàlla yokk ay leeram tal tubaab ba mu ñëwee Senghor xam a fal kenn député Senghor da ko ne ah, bi kooku moom député nag moom il faut nga am yenn njàng yi eh, wax yooyu sëñ Fallou na ko ah dañuy tàccu rek pour pour pour résumer da dañuy tàccu rek. mu ne ko am déet wax ko xam benn taalibe ne ko euh, wan ni ñuy def dañuy tàcc rek def nii ba ci amun a baral ko mu déni loolu ba tey moom la ñuy def ak dëkk bi mën a dem nit seen bopp ci ci yorinu ce que nag loolu ma ne daman fekkewu ma waaye dégg naa Touba ba muy soog a door ci temps Sëriñ Fallu neex lool ndax Sëriñ Fallu moom bu muy ñëw bekkoor la fekk ak njàmbat ak ndaqar waaye dégg naa ba mu ñëwee lépp la dàq mu neex lool murid murid yi boo waxee ñooy sëñ Fallou moom ba bi mu fi jógee bëgguñ mu jóge fi ndax ndax ndax ay xéewal rek ñu commencé def leen neex ñu commencé ñu commencé def leen neex commencé commencé dëgg naa ni ko sëñ ni sëñ Touba defoon architecture dëkk bi ni mu war a taxawee penc nga xam ne quartier mu nekk day am jàkka am am daara am penc ñu commencé léegi da ngay ñëw benn bayal rek gis benn cheikh wala benn borom sañ-sañ bu ñëw rek tabax këram dagg tabax ba mu xaw a mel ni kër suñ mbokk lébu yi ni ñuy wax nga sëñ Fall ne lii moom jëmul kër ba mu ci waxee wax ñu ñu ñu ñu kii ñu dëgër eh, sëñ Cheikh Gaynde Fatma mii dégg naa la woo ne nga xam bi te am nga sañ-sañ bi dama bëgg dëkk bi ñu teg ko ci yoon bu jaree na nga dagg commencé dagg man suma kër gi ni ma ko tëralee nga commencé ci booba lañ defar nii plan bi mu dox nii waaye gis nga tey am nañ fi ba léegi ñoo xam ne nii bu nee nañ jaar fii ñoom ñu bàyyi teg lii dañ fa bëggoon taxawal loo xam ne war taxu fi te loolu ñëwaat na moom il faut nga nekk nag nga yore li ñuy wax carotte ak doomu aadama bindoo noonu am nañu ni moo Mor Seck euh, candidat le conseil départemental élection locale yi ñu jël egg seeguñu ci waaye sama yéene man sama yéene ci Touba ma nekk ca biir rek nekk jiite ko. pour répondre ci question internet boobu. waaw deuxième bi ma laajoon deuxième bi ma laajoon donc wax naa ko tax ñun cadre yi mënuñu mënuñu mënuñu imposer wu li ñu mën rek mooy wane ne suñu disponibilité maanaam suñu taxawaay bëgg nañu ñëw jàpp ci liggéey bi indi ci xam-xam bi ñu yàlla may ci jàng ko. ndax dégg naa suñ Touba waxoon na ne jàng xam-xam ba foo ko def rek waaye bu sa diine moom téye ko Ah, loolu mënoon nañ toog Dakar di taxaw ma lay wax léegi affaire cadre yi bugguñu ñëw parce que boo ñëwee la ngay indi ci xam-xam dañuy toog sa banaan dëkk bi bugguñu cadre bugguñu ku ñëw di indi xalaat yu yu jamale dëkk bi kat am ba dafa am ñu fi nekk ñoo xam ne dañuy téye lépp rek ñoom entre ñoom euh, soo fi ñëwee indi loo xam day dox dañ naan ñoom lu leer non nébuleuse rek maanaam loo xam ne daal ñoom deuxième question Abdoulaye bi kenn xamu ko fan la non mais man dëkk te ku ne xam nañ Taïba Cekkeen li ni muy li muy li muy ci yoonu dit diit ñun Taïba ba Bada Seck moo la fa dàqoon nga daw ñëw. non ba mosuma faa nekk bañ ma fay dàq nit ñi dañuy wax rek xam nga nag Sénégal moom nit ñi mosuma dem man di xëccoo Taïba mosuma faa voté tamit fii laay voté ndax Taïba ñu ci bëri seen kër yi ñu ngi Touba. man ba may ñëw di choisir Touba lan laa ko dama ne politique njariñu àdduna ak pouvoir ak privilège ak moyen moo tax ni di politique ma sonal tey dem toog Macky Sall pare maay toog foofu. dama ne pouvoir comme loolu la jëriñ lépp lu ma am man bu dee 100 pour cent man ko bëgg a jox Serigne Touba. kon dëkkam bi ci laay dem politique ba bu may falu naa faloo foofu nga xam ne ëllëg su ma faloo am doole la may am ma mun ko jël indi ko tuubaa te kenn du wax ne du ko yóbbu fu mu ko warul yóbbu loolu moo nekkoon su ma yéenee ci ñëw Touba waaye ba may ba may wax di ñëw Touba bàyyi Cheikh a Balla bu sëñ Fall naan ma ñëwal ma jàpp la su may bàjj rek su may nijaay ñoo ngi yore ay xaalis yu bëri taxawu nekk nekk ay borom koom-koom ne ma ñëwal Kaolack ñu jàppale la ndax fa mais ma ñëw ndax man fii xol bi fii la nekk kon ma nekk candidat wala nekkuma candidat fépp fu ñuy liggéey la Serigne Touba ma j'ai fait beaucoup d'écrits am lu ma bind am Amadou Fall naay daa ma njëkk a woote c'est le géomètre de Touba depuis ce temps wu Serigne Sall ne ma li nga wax de bu ñu ko defoon tubaa léegi Touba développé wu ma ci xam-xam laa ko teg gëstu plan de développement stratégique ko tubaa wax ci tubaa les déficits déficits yi ñuy am xam nga xale buy màgg nga jëndal ko 2 mètres moo koy kii ren nga bàyyi 3 ans encore ko jëndal yére jëndalaat ko 2 mais bu yàggee xaftaan bi fii la ko yem ci yoom comprendre nga li ma la bëgg a expliquer maanaam nit dara buy màgg li ñuy wax croissance dafa war a lii war a ànd ak màggaayam dañ ko war a def boo ko deful ba mu tardé moo tax nga gis ñaan lèpre ngaana sa bu ne génn Sénégal Touba la ñu wax la génn ndax salte bi loolu est-ce que rafet na. travail nul bi nga a ragal ci base bi comme da liggéey ba suma base dama ma non non suma base man suma base amul Touba man awma quartier bii laa man surra moo nekk sama base naturelle ndax man suñu waa kër ñu bëri ci waa Taïba waa kër Sëñ Abdou Khadir lañu voilà commencé woon aussi ci Ablaye Wade ànd ñoom laat sàddaage yi yi ma jiite ndax maa leen mag fuuf njëkk leen ci politique. léegi ba jël sa base récupéré ko di ko doon. non non jëlul suma base dafa am base am suma base rek boo demee xayre gii sëñ Modou Boussa Dieng mii Boussa Dieng ak Nafi Dieng Boussa Dieng Nafi Dieng waaw du lu may revendiquer ci kaw tuwaay waaye mën naa ko wax kon foofu xayre sëñ yaa ko am mais politique du da nga naan fii kii wala fee dangay ngay liggéey pour gox pour ñëpp njaago bi fi ñëw dëkk tubaab fii te gëmul sëñ Touba di ab chrétien te nekk fi ci dëkk bi te te te respecté norme dëkk bi te daan dooleem dëkk bi la bokk ndax day fay impôt bu ñu defaree tëli da ci banneexu bu ñu defaree ndox da ci bànne da ci kii di fay nag impôt

li muy laaj njobootu boppam bi ko yàlla boole parce que xalif bu fi toog rek da nga bokk ci benn njobootu Serigne Touba waaye njoboot gi moom benn la waaye boo xësee ba toog xalif yaa uuf ñëpp nag kër yi mi ngi mel ni kër rek ak ay néegam kër gi daa bëri ay néeg waaye kër gi moom benn la li ma bëgg a wax foofu mooy euh, man conseil départemental bi ma fi nekk mairie bi bi ma ci ñëw damaa wax suma sëriñ na ko damaa toog ba ci àgg ma ne ko man day bu ma sañoon vraiment di indi sama xalaat ak sama taxawaay ci mairie tubaa ndax soxla nañ li ñuy wax ressources humaines soxla nañ capital humain waaw lu tax nit ñuy sàkku xam-xam lu tax nit du dundee ñoo jàngal leen ko lu tax yonent bi sallallahu alayhi yàlla bi muy wax ak nit di yónni daf na ko iqra wax ko lekkal wax ko doxal wax ko da ko ne jàngal jàng moo am solo jàng am xam-xam munoo jiite ab population te ëpp leen xam-xam te yow xamoo dara ba pare nag li ci gën a bon nag boobu boo xamul dara pare am doole te doo déglu. kon fa nga jëmale nit ko conseil municipal bi sax dañ waaye loolu mënu fee am. mairie bu Thiaroye yi mënu fee am. mairie bu Thiaroye yi koy tànnee ak statut ba mu am bokkul ak bu Touba. waaw dañu jàngul woon ñu tas yow xam nga loolu boo ci remonté rek dama la dëkk bi ni ñu koy gérer dafa am parti boo xam ne parti sañ-sañ la sañ-sañ bi kenn rek moo ko am mooy xalif général des mourides keneen ku ko fi yor moo la ko jox moo la ci jox ab moo am lu mu la ci jox waaye bu la ko joxee doxal ngir ngir yàlla waaye joxale ko doxale ko moom na muy doxalee moom xalif bi. lu tax jotul nag yéen cadre yi kon ngeen ngeen ngeen def plaidoirie boobu dajaloo waxtaan bind au moins expliqué ko carrément ne ko lii nag mooy njariñ. dama lay jox benn anecdote di tubaab jox benn histoire bu ndaw gis nga temps sëñ Saliou bi mu yëkkatee 10 millions dafa bëgg liggéey Touba ay cadre bëri man ci laa bokkoon ci ñu ko jiite woon laa bokkoon ak ay sëy ñooñu ay sëy ñooñu ñu mat ay téeméeri cadre ay ingénieur agronome ñëpp ñëw na sëriñ bi comme moo def lii comme sëriñ Saliou moo def ne dafa jël xaalis yëpp pour tabax Touba ñun kun léegi ñun ñëpp suñuy xam-xam nga xam dañu doon dem ñu ñuy fay ci ay société boo defee consultance dañ lay ay millions ñun ñëpp ñu ñëw ne nañ ko dara fu ci sëñ bi soxlaa rek domaine bu taxaw gratuitement def ko addiya dajaloo jël suñu oto ñëw jóg ànd bu ñëw sëñ sa kër sëñ sa mu berdeel ñu toute une journée ñun ko waxee jour boobu wutul porte parole moo déglu ñu gémm ñu boppam nañu de du ma defati loo xam ne jébbal ma leen ko ba ngeen wax ma ci xam-xam parce que sëñ xam-xamu baatin ak zaahir la daan doxee. Euh, gis nañ ni dafa mel ni kon lobby boobu nga doon wax moo tax Macky bi muy tànn sax dafa jël ci famille maraboutique bi Cheikh Abdou def ko def ko ministre waaye ministre boo xam ne gars yi nee nañ ko tur la rek ndax amul portefeuille amul cabinet foofu nag foofu nag am na exception par rapport ak lobby bi ma doon wax Cheikh Abdou lobby lobby ko. Ah. wala boog non dafa ndànk ma expliqué la Cheikh bi je le connais très bien et je l'ai suivi de très près parce que man li may wax seetu ma ci ku ma mere ku merewul man li ma gis dund ko rek lay wax Cheikh Abdou d'abord dafa engagé wu politiquement doomu seen Cheikh Gaynde Fatma di doomu soxna Baali mu soxna May Cheikh du bete bete pire jege tey fi ñu toll nii gan ñi ko gën a jege eh, ci Serigne Touba deret bëriwul Cheikh Abdou defe naa li war a jàng ci doomu soxna jàng na ko taxawaay bi mu war a am parce que gis nga li ñu liggéey ci màggal gi ànd ko ak sëñ Bass Abdou Khadre suma sëriñ maa ngi koy ziyaare ko ñaanal moom it yàlla suñu borom oyofal yan bi euh, gis nañ ñu liggéey ci màggal gi ci moderniser ko ci ci defaraat ko ba nga xam ne. directeur ma mais mais à man waa parti may wax ma def lu jar ñu ma ne may ma waa parti bi su yoon nekku si man ci parti bi laa bokk dañu am seen xalaat ma am suma xalaat dama ne. kii nommé ku ko neex lay nommé nommé na fi dañoo xam ne defuñ dara bokk far kon waa parti bi yooyu ñu wax taxawul nomination dépendre ci parce que maa ngi ci terrain politique bi nomination ci coobari président mi nga xam ne mu la yore décret ak ñi mu war a waxal ci dëkk bi waaw mais moom bien sûr loolu tam ñu ngi ci woo président de la république parce que loolu bu yàggee sax kenn dootu ko fi politiqual bu fekkee ne yow da ngay politique di rayante ci terrain bi di dem ci dëj yi dem ngeen di jàppale socialement nit ñi di défendre ay politique am di ko défendre ci rajo yi fu nekk te du la faale mais bu yàgg nga bàyyi ko fa ne pour ñu ko dem seeti leneen te loolu mi ngi am Touba te li koy indi nag mooy équilibre boobu tant que yow boo yéene nguur gi mënoo ko def entre déglu njob ñu yore yoon wi ci ngëm-ngëm bi taxawaay fi taxawaay Sëñ Touba mu njaboot ak militants yi nga xam ne ay militants lañ waaye di la jàppale tant que defoo équilibre téye fii téye leen ñoom ñaar waaye boo téye bi bàyyi bi wala nga téye bi bàyyi bi boo ci defee am déséquilibre Macky Sall nag loolu da ko xaw dal ci Touba dafa téye fii mais téyewul fii maanaam ñu ko defal politique toppatoowu leen du tout loolu c'est en passant il fallait que ma wax ko mais li ma la bëggoon wax léegi mooy euh, li ma doon expliquer léegi nga dagg ma ci Cheikh Abdou Bali Cheikh Abdou Bali dafa engagé wu ne man damay jàppale président Macky Sall bi mu ko defee yàlla def ko ñaari nattu ci famille am dab ko ñaar ñu am solo ci famille am génn àdduna mu continuer ci moom boobu lu jóg ne damay jàppale président Macky Sall loo xam ne c'est rare ci niveau bi mu yem ci yoonu Serigne Touba bi am ñu ko fi def sëñ Bass Thioub jàppale na ko fi mais avant. loolu dafa am lu ko motiver lu tax yooyu yëpp nga wax mu am ba pare mu sigé ñu ni faaw day dem te xam na ni mënul dem ndax échec. non mais attends mais attends moom njëkku fi dee échec la président tey ñëpp xam nañu juboo na ak yoon wi yoonu murit ñu jiite yoonu murit muy xalif yi ak ñëpp gis nañ ñu ngi koy teeru bu ci zaahir boog gis nañ ne vraiment lépp amul benn point de discorde nañ mën a wax lii ñagas na. d' accord ah, nga ci wala d' accord. ah xaw ma nag lu ko waral man xaw ma ndax man sëriñ moom lu mu def rek dama ci ànd sëriñ bi xalif bi moom lu mu def dama ci keneen nag keneen ku def leen nag mun naa ci am ay xëy waaye si xalif bi mu def mun bu ñu koy defloo xam nga xalif bi tam léeg-léeg mu def c' comme dossier rek mu ngi mel ne Aly Ngouille Ndiaye li wax ak kii rek li ko li ko premier ministre bu njëkk ba di tuumaal moo nekkoon kilifaam premier ministre. Abdoul Mbaye nee na daf ko jox foo nangam nangam lool c' est à vérifier euh, mais sa xalif bi tamit pour mu jël yenn décisions yi dañ ko jox information dañu ko ah Moussa de moom li ngay wut euh, maanaam ndaw lu tas xabaar de baax na fekk Moussa baaxut danañ defar Moussa ba mu baax. bu ñu jiitalee ñoo jaay ko sëriñ bi sëriñ bi jël ko. mu échec ñu jiitalaat ko mu échec ndax nag dëgg dëgg dëgg te ñeneen ñi nga xam ne ci am na yeneen base yoo xam ne ña ngi fay kii loolu dafa mel ni nag. non attention boo ne Cheikh parce que man Cheikh Abdou bi ñu ko jiite itam gañewul liste député bi waaw gis naa la ci moom présidentiel tamit noonu. gañewul mais mais parce dama la président ki mu joxoñ na moom la ci